bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi leen nuyu di leen ziar xam naa fas yéene tàmbali beneen silsila boo xam ne ginnaaw bu ñu jotee ay ndéggat yu xaw a takk yu bàyyi ko ci ngóor soosu ñuy wax jaawara te ndéggat yi lënt yu baree bari ne ci wane ne waa ji li muy wax ba ñaar génnu diggante ñaari mbir génnul diggante ñeme yàlla wala ak ñàkk xam ñaari mbir yi daal lenn lu ci ne euh, euh, moom da ko seetlu ci ndéggat yi ñaar yi nag mën nañoo daje boole ñeme yàlla ak ñàkk xam maanaam xamoo dara ji ba noppi di ca wax beneen bi mën naa ne mooy xam ba noppi di waxe bànneex te loolu fooguma ko ak ñàkk xam laa ko gën a jàpp jàpp waaye bu mu ci mën a doon woyefut ndax woykat ba ne ne fa laa tadri fa tilka musibatun wa in kunta tadri fal musibatu azamu fa in kunta laa tadri fa tilka musibatun wa in kunta tadri fal musibatu azamu bu fekkee xamoo loolu musiba la bu fekkee xam nga ba noppi nag bu boobaa nag li musiba ma gën a réy kon benn ci ñaar yi dal la ko wala ñaar yëpp daje ci moom indi na ay wax yu amut yu bare bare bari ci ndéggatam yooyu xam naa nag ñun fan yi ñàkk ñàkk jot ba tax sax yeen suñu yenn silsile yi léeg-léeg dañ ko daan doxale doxalewuñ ko noonu xam naa dañ ci ñëwaat moonu jàpp moo tax yii nag bëgg nañ koo raddu ndéggat yi benn par benn waaye tey dañuy def tam xiit bi ba léegi ñu del siwaat ci ba léegi ginnaaw léegi ñu del siwaat ci ba keroon yi muy jeexe ndéggat li nag ay lënt yu bare bari ma nga ci ay tuuma yu bare bari ma nga ci waaye tuuma lu njëkk li moom ci la ñuy tàmbalee ndax mooy wax gi mu wax ne as-salafu saalih dañoo ŋàññi tasawuf te daa mel ni moom loolu yaatu na ci wax ji wax ne itam boroom xam yi nga xam ne dañoo jaa dañ ay borom xam lañ leen jàppee eh, mën nañ leen a jàppee borom xam ñoom itam ŋàññi nañ tasawuf xam naa foofu la ñuy tàmbalee eh, bu dee ci wàllu as-salafu nag ci beneen xalqa lañ koy indi waaye xalqab tey bi. dañuy jàngat yeneen borom xam yi nga xam daa wax ne dañoo ñëw ci ginnaaw asalafu saalih te ne dañoo ŋàññi tasawuf ñooñu dinañ ci ñëwaat buñu tollee ci asalafu saalih waaye tey nag duñ dugagun ci asalafu saalih ji ji mu ne dañoo ŋàññi tasawuf dañ leen beral seen xalqa boobu ragal nañ ne sax mooy doon xalqa bi topp ci bii kon ñu déglu jaawara tuuti ba la ñoo jàll bu ñu nee salafu nag suñu waxee ci salaf mun nañu ñambaasee ñi ñoom ñooy salaf yi nii bu ñu nee salaf yi mooy ñi nga xam ne ñëw nañ si ginnaaw salaf mu nekk ay borom xam-xam yi nga xam ne euh, nit ñi dañuy dañuy reconnaître seen xam-xam si wàllu euh, diine si wàll fiqh wala si wàll sax euh, majaal bi nga xam ne moom moo aajo si majaali firaq yi kon noonu lañu buggee ñu waxtaanee ko incha allahu subhanahu wa kon ragal naa ne jaawara kon borom xam yim ne euh, ñooy ñi nga xam ne dañ leen jàppee borom xam te wax ne dañuy ŋàññi tasawuf ragal naa ne dana ci boole ibnu taymiya ragal naa ne itam yooyu borom xam dana ci boole ibnu qayyim waaye ragal naa ne itam dina ci boole muhammad ibnu abdul wahab kon ñu dellu si ñetti ñooñu ba xam ndax ñoom dañoo ŋàññi tasawuf am déet bu ñu delloo ci ibnu qayyim nag muy kenn ci borom xam yi nga xam ne ragal naa ne jaawara nangu na ne borom xam lañ danañ fekk mu ne buñ demee ci ibnu qayyim danañ fekk mu ne zaawiyatun min zawaaya suluki alxaqiqi maa xam ne jaawara dana considéré tasawuf ak soobu dëgg-dëgg noonu ko sëriñam waxe wala déet wala sëriñam daa wala xëy na moo gën a xam sëriñam li xew wala sëriñam daa bokkul ci borom yi nga xam ne dañu leen a jàppe ay salafi yi ne nangu seen xam-xam wala déet wala ndonga mi daa gën a xam daa ëpp xam-xam sëriñam boobu ñoo fi Ibnu Qayyim moom de nee na wa tasawufu wa tasawufu zawiyatun min zawaya sulukil xaq xaqiqi loolu wax la joo xam ne nangu tawil moom kenn kenn rek koy jéem a tawil mooy ku xamul dara wala koo xam ne daa naafiq waaye keneen ku kooku rek doo jéem a tawil wax Ibnu Qayyim ji di ko jéemale faneen mu dolli ci lan mu ne wa tazkiyatu nafsi wa tahdibuha nee na li ko tax a jóg kon mooy sellal bakkan sellal ko ci jàngoor yi nga xam ne day gàllankoor suñu suñu borom comme ni ko suuf yi waxee rek daanaka nii mu ko taxrife itam boo ci suuf yi defe naa sax léeg-léeg am koy woowee ilmu tazkiya tazkiya kon da gis ne Ibnu Qayyim moom taarif na lan mooy tasawuf kon te noonu mu ko taarif yi itam da nga gis ne boo demee ci ulama tasawuf dëppoo naag taarif yi ñu bari ca ñoom yaakaar naa ne taarifu borom xam yi bu ñëwee taarifu ndongo lu mel ni jaawara foog naa du jar déglu ndax ñii di wax nii jaawara lu mu xam lu jaawara xam rek xam nañ ko te xam nañ lu a xamul kon defe naa ne bu ponkal yi ñëwee li gone yi wax daanaka du jar déglu surtout gone goo xam ne nag moom xëy na la wax ci ñàkk xam rek la tege kon xam-xamu baatin bi nga xam ne li ne ci yëngutu xol yi li ne ci biir xol yi moom la ñuy wax xam-xam tasawuf bu dee yi nga xam ne ñooy cër yi itam euh, la nga xam ne moo wàcc ci àttee cër yi moom la ñuy wax xam-xam fiq muy taar muy taqsim googu nga xam ne boo demee ci ulama tasawuf dañ koy faral di taqsim ilm am lu ñuy tudde zaahir am lu ñuy tudde baatin boo demee ci ibnu qayyim itam euh, wax na ko nee na inna hada la ilma mabniyun inna hada inna hada la ilma mabniyun ala al iradati fa hiya asaasuhu wa majmacu binaihi wa huwa mustamilun ala tafasil wa hiya wa huwa mustamilun ala tafasili ahkami al irada wa hiya xarakatu al qalb wa lihada summiya ilma wa lihada summiya ilma ilma al batin kama anna ilma al fiqhi يشتمل على تفاصيل أحكام الجوارح ولهذا سموه علم الظاهر kon ilmul fiqh mooy ilmul zaahir xam-xamab tasawuf tamit mooy ilmul baatin jàppal loolu loolu nag li tax ma di ma di ci préciser da ngay gis ne Muhammad ibn Abdul Wahhab itam Muhammad ibn Abdul Wahhab tamit defaat na kooku taqsim Ibnu Qayyim wax ne فكلام أئمة الطريق هو هو على هذا المنهاج فمن تأمله كسهل ابن عبد الله التستري وأبي طالب المكي والجنيد ابن محمد وأبي عثمان النيسابوري نيسابوري ويحيى ابن معاذ الرازي وأرفع من هؤلاء طبقة وأرفع من هؤلاء طبقة مثل أبي سليمان الداراني wa awnu ibni abdillahi alladi kaana yuqaalu lahu xakimu l umma wa adraabuhuma fa innahum takallamu ala acmaali alqulubi wa ala al axwaal innama hum ila qawlihi innama hum xaa'imuuna ala iqtibaasi alxikmati walmacrifati wa tahaarati alqulubi wa zakaati nnufuusi wa tasxiixi almucaamala nee na kon xam naa li ñuy laaj mooy ndax jaawara moo gën a xam wala ibnu qayim moo gën a xam xam naa kenn ci ñoom moom xamul mu kon wala tax ibnu taymi ibnu qayim moom daa bokk ci al ulama salafi yi la ibnu qayim nee na waxi kilifay tariqa bi yoon wi ci ci ngërëm yi la ne ci yoon wii la na ku settantal ku seeni wax ku ci mel ni sahla ibnu abdillahi tastri ak abu talib al makki ak al junayd nga xam ñoom jaawara ñoom da leen di sikkal jàpp nañu réer li ibnu qayim nee na ku seetantal seeni wax ak waxe ku mel ni abu usmaan naysaburi ak yaxya ibnu muaz razi ñu leen gën a kawe sax ku ci mel ni daaraani suleymaan daaraani nga xam ne ak awn ibnu abdullahi nga xam ne moom lañ daan wooye xaqi xaqimul ak ñu ni mel nee na ñoom day ci jëfi xol yi lañ doon waxtaane lañ doon wax ak ci axwaali xaal ndax kat bari ci téere bu mel ni masaal ko jiraan da nga wal baatinul muslahu lil axwaali ndax xam-xam bi defar axwaal yi moom xaal yi moom mooy xam-xamam tasawuf Ibnu ci yooyu ñooñu kii kilifa yoon wi ci ci ci jëfi xol yi ak axwaal yi ci lañ doon wax nee na innama hum xaa'imuuna ala iqtibaasi wal maarifati wa tahaarati wa tasxiixil muamala ñooñu kon bañ fexe ba nit ki fexe ba am xekma waaye xam suñu borom subhanahu wa taala xol yi ak ak loo xam ne laabu xol yi la ak loo xam ne sellu bakkan yi la ak loo xam ne fexe ba jëflante gi jëf doomu aadama jëflante mu doon jëflante gu wér maanaam wéral ak jëflante kon sa sëriñ Ibnu Qayyim wax na wax gu leer fii ne kilifa yi tasawuf yi la leen tax a jóg mooy fexe ba xol yi laab fexe ba bakkan yi nit ki di jëflante jëflante gu wér lii nag mooy tasawuf tamit fa waa tasawuf ibnu Qayyim nag ñee ngay sikkal muy Abu Taalib Makki ñoom ak junay de ñu ni mel nee na looloo leen tax a jóg te lañ doon waxit loolo la kon xam naa li ñuy laaj moom mooy ndax ibnu Qayyim moom daa bokk ci eh, al ulama salafi salafiyuun wala ndax daa xamul dara moom te jaawar a gën a xam wala li xew daal bëggoon nañ ko ñu ko leeral ndax euh, gone bu dee wax loo xam ne sëriñam ba ko mën a jàngal jiitu ko ci la muy jéem woote gën ko koo xam boole xam lu mu xamut da koy weddi te boole moom gone gi li muy wax indiwu ci firnde dana aaje nag ñu laaj laaj boobee ndax daa mel ni moom kat alwalma salafi yi ni génne ni ci ay moom ci boppam euh, ñi nga xam ne dong ibnu taymiya lañu woon ku ci mel ni arrumiyul xariri al maaruf bil mutayyam ibnu abdul hadi tudd na tudd na Euh, ibnu abdul abdul haadi nee na kenn la woon ci donga ibnu taymiya yi moom moom nee na fa man kaana qutbal kawni fi xaali asrihi siwaahu man qad faaza bil badaliyati al ibnu taymiya moom mi koy askan naa qutb la woon ak ah, ana kan moo doon qutbu kawni bi ak ana kan moo doon moo gañe ak badal <coughs> ñu ñëwaat ci beneen sëriñub jaawara kon gis nañ ci audio boobu ni ibnu qayim moom la mu wax ne mooy tasawuf ak la mu wax ne waa tasawuf seeni taalif foofu la jëm euh, bukkut ak li jaawar wax ne mooy tasawuf bukkut ak li wax ne li wax ne taalifi waa tasawuf fa lañ jëm waaye ñu bañ a yem foofu rek ndax Ibnu Qayyim moom romb nañ léegi ne moom séddale na mbir yi ñaar mbirum zaahir ak mbirum baatin li nga xam ne mu waaju si mbiri xol yeeg mbiri axwaal yeeg mbiri sellu xol la koy faral di jëme waaye li nga xam ne mooy yu fës yi nga xam ne moom mooy jëf yi cër yeeg yooyu moom ci mbiri zahir la koy jëmale comme ni nga koy gisee rek ci téere bu mel ni Masaalikul Jinaan ci misaal léegi ñu xool ba xam ndax euh, sëriñ moom dong moo ko def ci sëriñ jaaware yi wala déet ñu ñëw ci Muhammad ibnu Abdul Wahab kooku defe naa jaawale jaawar dana ko boole ci al ulama salafiyyoon moom sax ñoom sax nee nañ mujaddid la kooku moom xanaa moom xanaa jaawar wuru ko gën a xam te soow xanaa gannaaw garaat googu la toll ñu dem ci Muhammad ibn Abdul Wahab boo demee nee na boo demee ci fatawa ak masaayilam yi nee na baasa allahu subhanahu wa taala muhammadan sallallahu alayhi wa sallama bilhuda alladi huwa alilmu annaafic wa diini alxaqi alladi huwa alamalu alsaalix wa diinu alxaqi alladi huwa alamalu alsaalix ida kaana man yantasibu ila addiini minhum man yatacaana al ilma wal fiqha wa yaqulu bihi kal fuqahaai wa minhum man yatacaana al ibadata wa talaba al axirati ka suufiyati fa baasa allahu nabiyahu bi haada diini bi haada diini al jaamici lin nawcayn nee na yàlla dafa yebal sayyiduna muhammad alayhi salaatu wassalaam ci njub gi nga xam ne mooy xam-xam bu am njëriñ ak diine yi dëgg ji nga xam ne mooy jëf ju baax kon bu fekkee am na ñoo xam ne dañuy askanu ci diine ñi nga xam ne dañuy askan ci diine am na ci ñoo xam ne dañoo yittewoo xam-xam fiq ñooñu rek la ñuy wax am na ci ñoo xam ne dañoo yittewoo xam-xam fiq te di ko wax tamit ñooñu rek ñoom lañuy wax ay fuqaha waaye am na ci ñoo xam ne dañuy yittewoo ak jaamu yàlla ak sàkku mbirum àllaaxira comme waa tasawuf comme suufiyee yi yàlla nag dafa yabal yonantam bi yonantam bi ci diineem ji nga xam ñaari anam yëpp la boole maanaam anamuk tasawuf ak anamuk fiq kon ibnu ibnu Muhammad ibnu Abdul Wahab seede leen diine ñaar te ñaari xaaj yooyu waxut ne daa sosu de wala ca euh, grec la jóge wala ci diine yi njëkkoon lislaam la bàyyi ko wala di ko sos ginnaaw yonante bi déedéet diine ji wàcc ci sayyidna muhammad alayhi salaatu wasalaam la wax ne ñaari xaaj la benn xaaj bi mooy la waa tasawuf ne xaaj ba ci des mooy xam ne moom la fuqahaa yi kon laaj bi mooy muhammad ibnu abdul wahab moom moo xamul dara ba nga xam ne sax waa lan mooy tasawuf moom mënu koo xam te jaawaar moom ñëw xam ko wala ndax muhammad muhammad abdul wahab mii dafa bokkutoon ci al ulama salafi comme ñi nga xam ne jaawara nee na ñooy ñooy borom xam yi ak a nag mu tuddal ma leen ndax waaye li li gën a xoromoon nag ci audio jaawara yi dégg mu la indi te defoon naa ko dana lim borom borom xam wax li mu wax wala bu naa muarrixoon dañoo wax nanga mu indi yan muarrixoon yi ñoo ko waaye daa mel ni waxam yi def rek lay faral def borom xam yi nee nañ borom xam-xam yi nee daa ñoo dañu ne te du wax borom xam bu ko wax. ndax foog naa ñi mu ngi leen tudd sax ñim naan ci taarix ñoo wax ne fii tasawuf fii la tasawuf cosaanu foogu ma ne ñi mën a ciy tudd kenn ni ñuy def rek la ñuy def borom xam yi nee nañ wala Muhammad ibn Abdul Wahhab mi moom nga xam ne moom àgg na ci gaa yi di ko dara daraja yi mu jëddit moom daa xamutan dara ba jàpp ne tasawuf mu waxuma la sax mu ngi doon luñ sos waaye ab xaaj la ci diine te diin la moo xam ne yonent bi moo ko indi lii nag waxu du waxi Moustapha Sylla nag de waxi ibnu Abdul Wahhab ak waaye du waxi Moustapha bu kuy mere na nga mere ñooñu nga xam ne Muhammad ibn Abdul Wahab moo wax ne moom kontarut tariqab tasawuf tariq tariqab su yoonu su yoonu yoonu yoonu yoonu suufi moom kay ki muy mooy ku wuteeg sharia waaye ku ne ku ne ci yoon tamit te woo yoonu tasawuf ak baatin nga fexe ba mu teqali ko caay-caay yi mooy caay-caay yi caay mooy yi nga xam ne ñoo aju xol ak cër yi te loolu itam ku xam taarifu tasawuf da nga xam ne mooy taarif bu wér bi nee na ku ne ci loolu moom fekk wute woof sharia contrôle la nee na wala nunkiru tariqata suufiyata wa tanziha al baatini min razaili al maasi al mutaalliqati bil qalb al mutaalliqati bil qalbi wal jawaarixi mahma istaqaama saaxibuha ala alqanuun alsharci kon tariqa suufi bu boo xam ne du wuuteeg sharia saxal na ko dim na wax na ko itam fu gën a leer mooy fee ma romboon mooy diine ñaari xaaj li benn xaaj bi mooy li nga xam ne mooy la suufi yéene beneen bi mooy li fuqaha yéene lu ci waaye nekk nag te wuute ak sariya moom moom ni mu waxee woon du la contre kon xam naa seen mujjadit bii nag moom xam naa kon war ngeen koo xoolal ndax mujjadit boo xam ne euh, tasawuf yaa war nee na ay daa sosu moom muy wax ne wante bee ko indi loolu moom defe naa ne wax yi wuute na daal war ngeen war ngeen maa lijjanti lal kan moo ci wax ne ci dëgg yéen ñaar Euh, ñu delluwaat ci ibnu taymiya kooku itam dafa na jaaware dana ko boole ci sëriñ yi nga xam ne ñoo ay salafi yi xanaa loolu foog li ma foog dan mooy mooy ibnu taymiya cheikhul lislaam cheikh kooku defe naa ne war naa mën a bokk ci ashuyuxu salafiyiina moom laa foog de xanaa fa fa fa fa jaawara fa fa aalimu zamanihi xabru zamanihi jaawara waaye yaakaar ne ibnu taymiya war na bokk xanaa xam naa sëñ Abdou Khadir Ndiaye sax daanaka yaakaar naa wax na ci lu doy foog naa jërtoon mo si ñëw waaye dama si joxe misaal rek jàll ndax li mu wax doy na waaye wax ne tasawuf baaxut wala lu baax niwu ci loolu moom raddu Ibnu Taymiya ci boppam bi daay yi nga xam ne sax ñu askanu ci tasawuf Ibnu Taymiya àgg na ci naan waaye demee ci muhaqqiqoon yi ci dëgg-dëgg ñooñu bokkuñu ci waa tasawuf maanaam ñi nga xam ne ñoo ne ci bidda tey tuddoo tasawuf Ibnu Taymiya àgg na ci ne waaye demee ci ñoom ci dëgg-dëgg ñooñu bokkuñu ci waa tasawuf nee na wa qad intasaba ilayhimu wa qad intasaba ilayhim tawaifu min ahli albidaai walzandaq walakin inda almuhaqiqina min ahli tasawufi laysu minhum nee na am nañu askanu ci gaay bidaaya ak gaay naafiq ci ñoom ne ci naafiq maa ngi ne ci ay bidaa ba noppi ne man suufi la waaye boo demee ci muhaqqiqoon nii nga xam ne ñooy muhaqqiqu suuf yi ñooñu moom boolewuñ leen ci seen bopp ibnu taymiya sax nee na ŋàññi tasawuf ci boppam zamimun maanaam wax ne tasawuf baaxut bëgg koo boyal nee na loolu ci moom lu ñu ŋàññi la maanaam li jaawaree def ibnu taymiya nee na zamim maanaam lu lu ñu ŋàññi la maanaam lee jaawaree def ci moom fa sëriñam ibnu lu ñu ŋàññi la te lii nag wax ibnu taymiya la jékki-jékki rek ne tax ndax mutasawwifa ay muttahidoon lañ comme ni fuqahaa yi nekk ay muttahidoon kii ŋàññi daa war a ne fekk ka jéng ci ñoom mu ŋàññi ko waaye bëgg wax rek ne ko ne ci tasawuf dangaa juum wala tasawuf baaxul wala yooyu loolu moom im tay bi ci moom da ko war a kon nag ndongoloo xam ne day wutee ci sëriñam di ŋàññi tasawuf te sëriñam di bañ koo ŋàññi loolu defe naa ne damaa xamul ndongolee xam lay xamut wala sëriñ bee xamut bee xamut waaye am na ci ko xamut kon ñenn ci ñee jaawara di ŋàññ ñi di wax ne dañoo juum ci bi daa lañ nekk wala ci lu wérul wala yooyu ibnu qayyim moom mustaqimuuna la leen tudde mooy ñu aw ci yoon wu jub ñi nee na fa amma almustaqimuuna min alsaalikiina ka jumhuuri masaayix salaf mithl alfudayl ibni iyaad wa ibrahima ibni adham wa abi suleymaan addaaraani wa maaruf alkaraxi wa sariyu saqafi wal junaydi ibnu muhammad wa gayrihim min almutaqaddimina wa mithlu wa mithlu cheikh abdulqadir wa cheikh hamad wa cheikh abilbayan wa gayrihim min almutaaxirin ñi ñëpp ibnu taymiya ñu jaar ci asrat almustaqima la leen boole may ñi nga xam ne ñoo ñoo jub te gis nga ne lim na ci ñu bari lim na ci karaxi saqafi ak junayd ibnu muhammad mi nga xam ne bokk na ci ñu jaaware ngaañ ñi ak Abdul Cheikh Abdul Qadir al Jeylaani nga xam ne mooy mooy kilifa tariqa Qadir yi ak ñeneen ñoo xam ne Ibnu Taymiya tudd na leen fi ku ci mel Ibrahima ak Daaraan yi ak ñeneen kon ñii mustaqim lañ ko sëriñub jaawara waaye jaawara nee na ñooñu jubut jubuñu léema texte bi mu doon jàng ne Ibnu Taymiya mi ngi ko wax ci man maa ko taw xaaju fukkeelu page cinq cent dix-sept ba demee ci xaaj xaaj fukkeelu page cinq cent soixante-huit tamit day gis mu ne wali abdul qadir wa nahwuhu min al mashayikh al mustaqimin gis ne kon abdul qadir jilani ci mustaqim borom tariqab qadir yi ci mustaqimuuna yi la fa ibnu taymiya moom nag defe naa ak bokkam ci tasawuf moom yaakaar naa jërëtul niqaas fi ne ak bokkam ci tamit ñi nga xam ne ñoo sos ay tariqa yi itam yaakaar naa ne aajawut niqaas Junayd mi nga xam ne jaaxal da koy ngaa ñu Ibnu Taymiya nee imaamu hudan nee kilifa njub la te du moom doog ay bastaami ñu bari da gis ni mu te tey noonu lay waxe ci ñoom kon xam naa ne jaawar Eh, damaa xamul moom daa xamul dara wala sëriñam yi dañoo xamul dara wala ibnu taymiya ak ibnu qayyim ak muhammad ibnu abdul wahab dañoo bokkul ci ahlu ulama salafi yi ne yi nga xam ne ñoo ñëw ginnaaw ginnaaw ak salaf te xam tasawuf xam ne tasawuf baaxut man daal bëgg naa ci leeral ndax bu fekkee yéen seen kilifa yi wax dëgg yàlla moom eh, daal moom daal damaa amul jaaxle daal bëgg man daal li ma ngeen leeral ma ko ndax ibnu taymiya daa bokkul ci ahlu ulama salafi yi woon wala ndax daal xamul daa bokk ci borom xam yi nga xam ne ñoo xam lu bari nga xam ne seen gëstu daal yaatuwut nga xam ne maanaam daal euh, yaatal ci gëstu ba tax tasawuf mu taxut mu xam ko kilifa tasawuf itam xamu leen bu baax ba tax mu leen mu leen di tàgg naa mustaqimoon lañ ak di tere ku ngàññi tasawuf wala yim tey mais ko def zawiyatu min zawaay sulukil xaqiqi wala Muhammad ibn Abdul Wahhab mi ko def ab xaaj ci diine ma daal bëggoon ngir indil may leeral moom yu gën a leer nga xam ne ñooñu dañoo xamul dara nga xam ne seen seenu gëstoo gàtt ba xamuñu li xew euh, wala dañoo bokkul ci al ulama salafi yu ne yi nga xam ne moom ñoom lañ jàppee borom xam bëggoon ay leeral la laaj soxla xam naa may mën fii ba deuxième xalqa bi boobu deuxième xalqa bi ci lay ñëwee ci asalafu saalih yi jaaware neey dañoo ngàññi tasawuf